macha allah taarkaal yaa fekkee soxna si soxna si ay yow baal ma chéri baal ma xam liggéey bi day bëri ay gan tout le temps baal ma dégg nga toogaay bi na trop baal ma dégg maa ngi jéggaay maa ngi jéggaay xam naa léegi dugg incha allah liggéeyoo de ab bi liggéeyoo nit na la fi mën a toog nga mënoo dégg nga mënoo kaa te kenn newu ko jox ko ci jugal jugal jugal jugal jugal nan dem nan dem mu ànd ak moom encore fàggu nan dem yow bokkoo ci nit dañ na boole si nit yow si rabi àll yi nga bokk si xappul ah, kon na moom la dama ne demoo sa kanam bi moo présentable bàyyi bu sëñ bi amee gan nga yaakaar da nga cee war a bokk yow da ngaa ñaaw présentable loo am àll nga da ñaaw ni ñu moo baax bu ko réew li nga jaxase nii lii la la ni nga jël sàmm tax si démb jël yëre sama doon boo lekk ak pull tàngaay bii fi temps xam nga lu ma war a ma def pour man lu ma def pour man la mën a neex franchement parle te nag comme que yow yaa may xale bi mais xool nga xale bi dugg léegi nam mel mais bàyyi ma dugg ma ànd dugg dugg dugg. dugg ab bàyyi xol. bàyyi ba bàyyil fo abbi bàyyil yaa ngi koy gaañ. ah ab ab bàyyil fo dem. duggoo abbi dama laa bëgg de. ndax xam nga ne suñu. wuy yaa jógoo waaye bëgg nit mu. mais ma ne naxar loolu ci. abbi dooy sonal nga ma waaye abbi waaye bëgg nit a jafe waaye. maaleykum salaam. waa sant yàlla. nangu nañ ziar bi. alhamdulilah. alhamdulilah wax nañ ma ko woote nga alhamdulilah noo tudd Amina Amina tàllal sa loxo nii suma dara de tàllal beneen bi tegal sa loxo fii melal lu koy bës bës àttal <laughs> soxna si sa lépp lëndëm oh oh yow fii kenn mënu la fay gis oh oh problème yi bëri nañ ba sa wàccal ba sa àggal ah yow kenn mënu laa seetalee fii da lu lu lu rab bu soxor bu bon foo may xeex moom ah oh, dalaa sonal kii moo la yàqal lu bëri yow kenn la seetalee ci saal ah kañ dem néeg ba damay xeex ak moom nañ dem néeg ba jiitu ma kii bu la bàyyi bu la dangay dee dee bu ñaaw laa gis jiitu ma gars yi ñoom ci néeg lañ lay seetalee wax ci néeg lañ suñu néegu commencé di jekk fulaar sa bopp oh, si très bien kon ni ma la ko waxee rek del ñëw guddi chaque semaine benn yoon par semaine parce que yow nii dinañ a seetee macha allah te takkal sa jaaro bi nag dafa am yoo xam ne dañuy wax nga voilà très bien rab bu bon daal kii moom semaine bu nekk <laughs> rab bu bon la am rab man daal abi bi nekk ci kër gi di tambaambaam di dugg ak génn fu ne nii sa dara ci yàqu te dara xewul loolu yàq la kii ka daal mu fi commencé bëgg yàgg aw sama xel day ñaaw damay toog si yàgg sama xel da ci moom te war naa ko mën a ah! ay waa kay ah dama alaaji boogaa indi loolu waxoon na ma ci ñett teg waay wàqil waay wàqil ah koy ban la ci waay am na bu ma ci waxoon ne boo ko bi ko wala nga diwa ko loo nit du ci teg baax da ngay sangoo si daqaar baa dee kon bii la parce que ñaari <laughs> si foo ma wax kii foog ma testé garab bi yow abi li ma lay wax na nga ko nangu sa xel mi ne ci man foo toog bul wax déet li ma bëgg ci yow ak mbiru caay-caay nang ma ko nangul mu neex la ci mu lay naqari <laughs> gàtt bu am solo baa ngi boutique nga war a ma may woowee xanaa xaalis la lay doyee wallaay wallaay léegi lu dàq xaalis sax laa lay doyee loolu après xaalis bi tegu abi dafa am loo xam ne foofu ñu waxtaane ko te li tax ñu war koo waxtaanee mooy dafa nekk loo xam ne gën na ci yow gën ci man waaye ci yow la gën a gën ndax dafa am loo xam ne dama ko bëgg a wàññi ci man yokkal la ko yow ah, te loolu mooy dindi ab faq ab leer ci man daf ko ci yow nga xam ne ëllëg mën ngaa demal sa bopp li may def nii mën ngaa demal sa bopp ah, faw ñu jaxasoo ah, faw yow ñu ànd maag yow te dama koo gént gént bu leer na ndox xéewal la gis nga ndox bu set nit xéewal la bu jaxasoo alal la dama gis maag yow ñu dekk ci ndox jaxasoo nga may sang di jooy di jooy ma lay sang di jooy te jooy mbégte la bu doon ree la sax ma ne musiba la léegi nag ma la ciy laaj sa xalaat faw yow yow ak man ñu jaxasoo sangu Ah? lu ma bëgg. laay def. kon loolu amul problème. loo wax loolu laay def. ay ca ay ca loolu ca sa yàggal. waaw. Ah, jiitu jogo. ah kii koy jëmal bu topp la rek. Ah, nga ni ma. nga nga may sang ma lay sang. wallaahi aji say kenn moom. jaxasoo ma yow. naa jaxasoo ngay jooy may jooy. di nga jooy yow. ngay jooy may jooy. di nga jooy may jooy. ngay jooy may jooy. jaxasoo. Yeah, yeah, yeah. Oh, do I don't know what? way mooy yow nii laa ko génte woon nii léegi noo ko bëggee noo ko xalaatee noo ko defee man bàyyi naa ma ibbi ma ma waaye <laughs> no, no. I, I don't know. What do I get to go? Wait, wait, wait, why? Wait, wait, wait, wait, wait. Why? Ah! Ah! Benene wa me ga bo efe. Do ti mo ba ni bi. Do ri wa ni do so da. Ki je ba. Ni ne dugal ci biir néegi di leen fooy woon bokk ma ci.